nuyu la say xaale ziyaare bi nga xam ne bërëbu Cheikh a salaamaaleykum wa rahmatullahi wa bu ñu leen nuyoo siyaar leen nuyu mbokki internet yëpp eh, Cheikh Abdou Lahad day moom mënees naa wax ci moom lu bari ndax daa jëf lu bari eh, kuy wax ci moom boo xamee du jar ngay sonn ndax foo gestu rek gis jëfam fii ñu taxaw firnde la ci moo ko faggul sëriñ Touba xëy na la cay dolli ko mooy suñ borom faye ko mu noppaloo fi waaye ab jullit la woon ab murit la ku mat liñ ko lim doonoon la mooy guide religieux wala qaidun diiniyun mboolem melokaan yi nga xam ne nitug diine war na koo làmboo muy xam-xam di aw fit di jom di ngor di gëm lépp ngi woon ci moom ànd ak fulla nag joo xam ne moo ko gunge e, amoon itte ju kawe nga xam ne lu sotti moo ko sottal xëroon lool ak xéram dinaa ci joxe misaal ci jumaa ji tey am na loo xam ne bu ngeen ko seetloo léegi la ci waxin baat bi mel ne lu yomb waaye yombutoon mooy jumaay tubaa benn dàkkintal la amoon ñëpp dañoo maase woon di ko naw ci ak rëy lu ñëpp maase di ko di ko naw ci rëy ki jëkk ne nañ ko dolli kooku mooy kan kon kooku loolu day tegtale ak xëram bi mu ko waxagut rek lañ door a bi mu ko waxee rek lañ door bàyyi xel ne waris na ko dolli waaye dafa mel ne lu ñëpp di wax ne lu rëy la moom dolli ko daanaka luñ xalaat tóor la bi koy dolli it ni ko dollee li mu ci dolli rek defar na ay juma soo xoolee taxawaayam ci yoon wi ndax dañ koy tuddee batiseur muy ab tabaxkat xëy na loolu jaadu na ndax ku xool la commencé ci marché ocas xool euh, foras baay Lahat xool jëmmi kër Sëñ Tuubaa gi yeneen kër Sëñ Tuubaa yi tali yi fi yokk ci ak nekkam Euh, infrastructure yi daal euh, daaray kaamil ji ak euh, université ba waaye bâtisseur gi dëgg ci nit ñi tabaxaat gi tabaxaat jikko yi ba ak murit feeñaat ni mu feeñe tey jii kuréel yu dul jeex ci daa daayira yi kuréeli xaside yi gone yi melokaan yu lislaame murite yi ñu yor man nga ne lépp di ab liggéeyam ndax gannaaw bu ko melowoo moom ci boppam jëmbat ko ci isbu mu meññe fa ba tasaaroo kon yal nañu ko yàlla fayal sax di sotti niiri yërmande ci barabam bu tedd bii waaye tamit nag mu bokk ci lam koy faye mooy ñun ñii ne ci gannaawam yàlla xiir ñu ci wéele njàngaleem moomee di dund ak murit ndax moom loolu moo doonoon ak bëggam te bu ñu nee ak murit ak murit mooy lislaam ji sell la na jërëjëf.